سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدي الذي أحاج الراحي الله الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر الله allahu akbar asalaamaaleykum. waaw.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 والصلاة والسلام على من أخرجنا من سلمة الجهل والساك والنفاق والإملاق سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه سير الخلق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد من لين دي ديكل لين يب لين بالعق لين بالعق تي سيارة تي سيارة سنو سنغ بين خمي من اكتوبة سنو منتخبك

mboolem ci aju ci sëñ Saliou Mbacké ñu ngi siyaare ñëpp di ñaare sëñ Cheikh bi siyaare mboolem sëñ Saliou bi kenn bañ a des maa boobu nag ñu ngi koy takk ci loxol sëñ beek mu jottali ñu ko ci mboolem ak sëñ Saliou di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko li mu yéene liggéeyal sëñ Saliou sama borom dimbale ko ci ba ko nu koy njottam ndax kat adduna moom dara la indiwuñu fi loolu jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla moom jaamu googu nag mooy li nga xam ni moom suñu waxtaan ci la jëm ak liggéeyal ndax sëriñ bi gannaaw boo xam ni suñu boroom joxe na ndigal ab jaamam di ab xaritam Seydina Ibrahima alayhi mu doon ah, ndigal loo xam ne diis na lool ci bakkan waaye mu tax taxaw mu taxaw ngir ndigal suñu borom loolee fas yéene dara mën ko du ko ko defee defee nga rafet suñu borom jot ko jot doomam dañuy Seydina Ismaayil ñu ñaan yàlla suñu borom ah, jaamu googee mu doon mu mu